dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. tali bi bàyyi ko gaar bu ndaw jëm ci jumaay Tuubaa ju mag ji kenn mënu ko jëfandikoo ci yi la jamono ndax yàq gi nga xam si ne moom la ko ndoxum taw mi yàq loolee nag moo waral kàddu yi waa Touba mosquée. tey jii nag li waral ñu mbooloo mi yëpp teew fii ku ne xam na ne fii di Touba mosquée. dox suñ diggante ak jumaa ji matul 100 mètres tëli bi bokk ci tëli yi nga xam ne moo njëkk ci Touba yaakaar naa ko xam gaar bu ndaw nga xam ne bi ñuy liggéey jumaa ji bi gaar bi ñëwee ba ci station bi tëli bi bokk na ci tëli yi njëkk ci dëkk bi ñu waroon wax xàll jolof waaye ñu gis ne dañ fi am ay jafe-jafe yoo xam ne nii yu rëy rëy ci wàllu ndox ndax tëli bi boo gisee ku gis image yi gis jumaa ji da nga xam ne ñetti at ba ñeenti at ak ni ndox mi ñu la fi def moo doy doy waar lool at yi yëpp nag ñu ci dox ay jéego di ci wax ba daaw ñu ne woon dinañ ko defar incha allah balaa màggal rek ñu gis ne ba noor bi ba ñëwee ba léegi ñu ngi ciy soññee di ko fàttali autorité yëpp waaye ñëpp tànkam nañu. te moo ne xàll wi de wu am solo la ndax ambulance yi ak ñi jóge armée yu mag yi ak armée yu bàq yi ak lu ëpp ci commerçant yi file la ñuy jaar. yoon bi yoon bu am impact la commerçant yi fi la jaar bu ñu dee dem armée la fi la jaar ambulance yi nga xam ne ñu évacué diggante Linguère Daara Matam ak ak hôpital Ndamatou yëpp fi la jaar ñu dem jumaa kon yoon la boo xam ne route nationale la boo xam ne gis ngeen rek diggante bi ñu taxaw di fi wax rek lim keree ci embouteillage ci dëkk kenn xamul toll kon bi ak ndox mi matul 100 mii nga xam ne moo ci sësit nga xam ne li wër jumaa ji yëpp moom rek moo fi moo fi nekk ci luñ tëliwut di mbedd mu mu mu doy waar woo xam ne yaakaar naa bu ñu dee xool ci ak calte ci dëkk bi bokk na ci mbedd yi gën a salte ci dëkk bi. te it li doy waar te ñu gis ne màggal gi mosaan ñëw ñu baaree déviation yi mbedd mi rek lay doon. ca daaw gis nañ ne nit ñi am nañ fi ay jafe-jafe yu métti ren jii gis nañ ne jafe-jafe yu day gën a ngir saafara jafe-jafe yi am ci wile yoon nag askan wi li ñu sàkk mooy kilifa yi wut ay pexe bala muy ëpp ay yoxoo. waaw li ñu bëgg daal mooy autorité yi ak ñi nga xam ne ñoo ko war a defar ñu jéem cee ñëw ñu defar ko waa Touba ci kanam waxoon nañ leen daaw bañ ñëw ba war koo defar ba natt ko ñu aaye leen ko. waaw nee nañ kilifa yi ñoo leen ko aaye euh, amuñ autorisation ci pour defar pour pour laal télé bi ba noppi ñu ne dafa am kilifa yi leen ko aaye loolu mo loolu loolu moo tax laaluñ ko ña leen ko aaye woon na leen fii ak diwén danañ ko defar te boobaag léegi laaluñ kenn ku nekk ci ñoom ñi ëpp ñiñ mën a wax téléphone woo nañ leen wax leen ko ñiñ mën a gisante ñoom gisante ñoom bi ñu defal tali marché bi dem nañ ba ñi nga xam ne ñoo ko gàlloo leen mbedd mi nga xam ne moo des ci diggante fii ak jumaa nañ ko boole ci tali waaye taxul taxul taxul taxul taxul taxul ñu boole ko ci muy ndox moo xam ne suñu tali boo gisee nit ñi kër yi nab bi ak la ñuy manque di ñëw tali bi kon léegi li ñuy sàkku mooy ñu defaral ñu ko mu am canal wala boog bu ko mënut a defee canal ñu jëlee ko fii ci fii fi ñu toll nii ba ndax tëli bi ndox mi daw mi daw fi ndox mi daw fi taa li ko waral mooy tëli bi dafa dem ba ndox mi taa di ko wàccee léegi nag diggante canal bi matul 100 mètres léegi nag seetaan gi ëpp na lool gis nañ ne bi ministre de l'intérieur ñëwee yaakaar naa plan Orsec bi ko déclaré ministre de l'intérieur di fi ñëw li wër jumaa ji benn tëli boo xam ne mën nga fee jaar dem ci jumaa ji jaaroo ci ndox bu dul tëli 28 ñu teggilee ko fi jaarale ko ci connaissance yóbbu ko ci yeneen gox yaakaar naa bu ñu dee wax centre ville Touba fii mooy centre ville bi boo gis dafa am centre ville te fii mooy centre ville bi kon léegi nag bu ñu fi bàyyee loolu lépp ngir jàpp ne nit ñi dañoo dañoo dañoo parce fekk ay nit lañ te gis nañ ne bis boobu bokk nañ jigéen na xarit ñu ñu yëgën a miseen tërëño dañu fi indi ay ñaari oto ñaari oto village ñu wii ko mu dem te ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk moom ay at xanaa ñun a gën a mën a dund na ñu fi dëkk na ñoo xam a def ay koo saafara li ko mën a saafara ñu indil ñu canal muy yóbbu ndox mi wala boog ñu defaraat tali ba nga xam ne ndox mi jóge jumaa ji ndax ku ne xam na ne jumaa ji ci digg nekk te fii ci xur la ndox mi jóge jumaa ji bu ñëwee mooy jàdd dugg ci kër yi di dugg ci mbedd yi ak yi nekk ci kër yi bu ñëwee di taaf di yàq tali bi yii kaddu nag ay kaddu dankaafu rekk la waaye bu fekkee ne saafara wuñu ko askan Touba dana ñu yokk seen i jéego ba yegg ci ñaxtu léegi nag liñ ci lii moom ab alerte la boo xam ne waa koñ dañoo yegg jënd ngir def ko ngir yar ak i teggin ngir xamal ne nit ñi ñu jéem cee dox ay jéego buñ ci saafarawul nag danañ am beneen acte boo xam ne incha allah buñ ci àggee danañ waat ñëpp ñu def ko loolu mooy li Mourtala Bousso nga xam ne ñoo dëkk fii Touba Mosquée ànd ak ñoom liggéey ak ñi fiy yëngatu ñëpp ndax fii sol économie la ku fi gis marché bi ak gaar bu ndaw li muy dugal ci économie ci Touba ak ci Sénégal amul fenn kon nañ ko defar bu baax jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci wile yoon nag bu fekkee ne saafara wuñu ko mën na indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi ci màggalu Touba gi nga xam si ne ay fan yu néew rek moo ci des dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen